waaw ñaari jàngat laa ci am parce que jàngat ñaari mi yu bokkul parce que benn mi-temps bi dañoo teel a teel a dugal voilà reculer adversaire bi ñëw ñëw ñëw égaliser voilà yàlla daf ñu dugal ak deuxième bi mais deuxième mi-temps bi yëpp waa adversaire bi moom moo dominé pour dire vrai adversaire bi moo dominé deuxième mi suñu égaliser woon mériter nañ ko voilà parce que voilà avant ñuy ñëw xamoon nañu ne Stade de Mbour voilà équipe boo xam ne la ci ci ci ci jeu court bi amoon na ci ay ay am na ci ay ay ay ay dispositions yu baax voilà xamoon nañ aussi euh, xam nañ ne xamoon nañ aussi euh, défense bu baax la ñu yor parce que ñoom ñooy quatrième meilleure défense ci championnat bi voilà xamoon nañ aussi seen jafe-jafe sur les balles euh, moo tax semaine bi yëpp ñu insisté si tey moom la xale yi dugal si si ci ci ñaari bi di voilà ah, kontaan rek parce que tey jii boo jëlee <laughs> coupe moom entraîneur bu jël coupe moom kontaan nga mën am ci équipe bu mel ni jaraaf ba nga xam ne voilà jaraaf chaque année dafa war a gagné pression bi tamit voilà réyoon na aussi parce que man fàttaliku ma fu jaraaf joué final peut-être fàttali ma ko wala boobu xale la aussi tey nga ñëw ñu ne la jaraaf moo joué final nga nekk nga nekk entraîneur bi voilà pression bi dafay am sentir naa pression bi euh, après voilà xale yi wàccee nañ ko bi ñu dugalee deuxième bi ba gagné match bi. bon euh, expérience bi ma ci li ma si gën a marqué c'était xam nga football ñaar dafa am défendre ak attaquer tey suma équipe gis naa beneen xar kanam boo xam ne euh, am na ko tey. bi ñu stade Mbour euh, dominé ñu am taxawin bu baax a baax a baax a baax loolu moom parce que ñun ci début saison bu ñu daan dominé rek dañuy dañuy jël bi mais tey voilà dominé nañu 45 dernières minutes yi voilà après voilà ñu défendre si baax gis naa ci benn xar kanam peut-être yéex naa ñëw aussi <laughs> parce que euh, ñu bàyyi ba final bi door a door am loolu voilà du du du lu du lu rafet mais voilà. l'essentiel moo doon gagné rek contentement laa ci am daal. fi mu ne moom noppalu laa gën a tal laa gën a tal parce que voilà saison bu duré 13 mois parce ñun jaraaf officiellement ñu ngi commencé 19 juillet 2022 voilà tey le 27 août 2023 13 13 mois de compétition voilà après noppalu laay def bu bu bu amee décision ba am rek après voilà di ngeen ko yëg ci semaine bi incha allah. Euh, damay leen di wax benn anecdote tey jii Youssou bi mu fi jógee man dama fi jóge woon dama ne damay damay bàyyi. mu ne ma cette équipe elle est pour gagner moo boobu laa jàpp moo tax ma dem negaay gars yi damay yeggale tey kon bu résultat yi amee voilà il la raison sur nous voilà. Ah, man bëgguma di wax ci jour individuellement mais bon comme la question est posée xam nga Wele bokkoon na jour boo xam ne li mu joué championnat bi bariwul je pense que cinq matchs la la joué championnat coupe yi je pense que ay trois. tey jii demoon nañ ba naan voilà est-ce que moo war a jouer tey warul jouer parce que nekkoon na sama bopp voilà mu jouer euh, tenté chance am am na ay qualité parce que man bi ma fi bi ma ñëwee dama ne nañ ko abale pour mu dem màgg ji parce que voilà ki fi nekkoon doon jouer latéral moo ko ëppoon euh, moo ko ëppoon expérience euh, malheureusement après kooku arrêté voilà mu saisir chance am tey